waaw lii problème bi mooy ñun tool yi moom ah, dañu fi juddoo sunuy maam ñoo doon bay fii jur fi sunuy baay sunuy baay di fi bay ba dem yomal xëyam bàyyi nu fi ñu ne fi tey jii di fi bay même bu nu moomul suuf si sax état moom ko gis nga ginaar boo ko yoree sa kër di ko rey di nga ko nax ndànk ba jàpp ñaar tànk yi tëral ko rendi ko mairie Patte lii lépp cause bi moom la mais lu waaye def tey daan la ko def suba gis nga àdduna loo fi jaay nit dinañ la ko fay ëllëg am solo mooy nit ki ñun doomu réew mi la ñu du ñuy doxandeem suñuy maam fii la ñu juddoo ci ndakaaru gi bokk ci ndakaaru gi ñu bokk ci suufas ndakaaru kon bu ñu demee ñoom ñu jóge fu leen neex ñu fal leen benn poste maire nga yaakaar ne àdduna la wala du jeex ndax sa bopp mu indi fi ñoo xam ne xaw ma ay eaux et forêt lañ xamul doon yor seen i fetal mel ne ku jàppi koo xam ne sax doxandeem la ci dëkk bi même doxandeem ci dëkk bi sax boo koy jàpp sax doo armé woon ni lii du fulla du fayda duy teggin bu dee dañ leen ko sant ki ko sant tegu ko fenn nit ki boo koy bu nekkee ci suuf wala nekk ci yoon da nga koy jox këyit boo ko joxee këyit nga nekk bis sàngam damay ñëw pour def lii bu dee dafa laaj déplacé wu mu déplacé wu mais bu dee déplacé wu joxu këyit jox ko dara benn jour nga xëy ñu dégg ñu ne machine yaa nga fa ñu ngay dajji ñu ngay def nangam nga di jaay doole doole amul fenn. Euh, Abdou Karim Lo. Abdou Karim lan nga fi. bon tool bii suñu tool la toolu xam nga doonu la rek quoi Cambérène lañ dëkk fu lañ juddoo quoi loolu moo ñu jotalee si tool bi. non ñun dañ judd fekk suñu maam yi suñu bàyyi yi ne si tool yi ñu bàyyi dëddu yàlla na leen yàlla yërëm bàyyi ñoo tool yi quoi. ñun xamuñu ñoom waxuñu ñu joxuñu ñu sommation joxuñu ñu dara man dama liggéeyee woon kaaru nii wàcc ñëw ñu woo ma ni ma kaay ñu ngi yàq tool yi joxuñu ñu këyit joxuñu ñu avertissement verbal jox ñu dara ñu ngi lan si tool mu ngi nii ooy forêt ma yaakaar ne moo war euh, protéger nature bi ñëw di daaneel ay garab hmm? lii dara génnul fii dara xamuñu motif bi man bi ma demee directement si euh, commandant bi bi ko laaj man presque moom daf ma mel ma dàq comme xaj daf ma dàq comme xaj man que je suis venu pour une nouvelle dama lay laaj rek man dama lay pour xam ñu doon am suñu alal fii dëkk si réew mi xanaa au moins soo ñu waxee kay su dee pour la bon cause sax dañ siy ànd su dee ab yoon bu ñuy defar tantôt ñu ni yoon bi lañuy defar tantôt ñu ni batisi la dindi léegi nag si biir si yooyu dañ gis yoo xam ni dañ ñëw ba fii xam nga fii sore na ak euh, yoon bi ay 15 mètres nga gis boo koo xam ne mu ngi sës si si si si si yoon bi yàqaloon ko ñëw ñu yàqal ñu xool fii ak yoon bi ñu sore dañu ñu ciblé quoi ñun daal en quelque sorte xamuñu ko ba léegi xamuñu kan la ñuy waxal association bi ngandi association la am ay këyit dégg nga yoon fii yëpp dañ ko cartographie am na benn ONG canadien bu fi ñëwoon ay temps moo ñëw xool fii zone verte bi investir fii defar plan yi fay 10 millions ñu defar plan yëpp tool boo fi gis am na numéro ñu lëkkaloo ak ONAS muy muy traité ndox mi di ñu ko jox tuyau baa ngi fii fi la machine bi jaar dégg nga yooyu yëpp ay collaboration la lañ defoon ak waa ONAS ak affaire yooyu noonu mais man li ma jaaxal ba jaaxal mooy dama yaakaar ne eaux et suy ñëw di yàq dina fi bàyyi garab au moins garab goo xam ni sa waaye ay cent ans la fiy def sampoo garab di yàq garab ñoom dafa am leneen lu leen tax a jóg leen leen moo leen tax a jóg te fii xam nga euh, kii la décret décret moo ko fi bàyyi fii kenn mënu fi dëkk fii amul dëkk kenn mënu fi dëkk tabax yi ngay gis yii yëpp xam ay lan la. su dee taw ñu dugal fi suñuy matériel wala affaire yu mel noonu loolu dong la ñu ñëw démolir que nii quoi comme ça arbre fruitier yi xoolal limon yi di batan serré bu ñuy récolte machines yi mu ngi nii gis nga seen taas yi nii comme ça sans sommation sans dara. Hmm? ñun kay fi mu toll moom doo au mur lan ne dañ ñu ñu dañ ñu abaat. su président demee ba naan autosuffisance alimentaire ñun ñuy bay di dunde ñun dañ yor sañu liggéey di liggéey de tool bii nii nii nii nii nii ñun famille lan suñu yeneen tool yaa ngi si biir fee mais gis nga tool bi fii ki moom bii nii nii nii nii ki nga xam ne moo ko moom moom soxlawul sax suuf dafa créer emploi mais billaahi soxlawul sax liy génn si tool bi tey jii moom leen jël mënute ko yóbbu ko fële comme nii toroxal ka loolu moo ñu metti loolu moo metti jëluñu gaal réew mi metti na diwliñ yow 16 litre diwliñ pero bi ma koy jënd maa ngi koy jënd vingt vingt cinq mille vingt cinq mille cinq cent ñuy wax lu ñu dunde di góor góorlu fii ak ñii ñëpp ñu ñëw démolir que nii comme ça nan ñu jox kayit wax ñu motif valable. waxuñu nu dara waxuñu nu dara ñun ñaanuñu leen saraxuñu leen yalwaanuñu leen ñoo ñoo yem ci réew mi bu leen fi ëppalewul ñun ëppalewul ñu fi. ñun fii lañ dëkk juddoo fii gëmbay bàyyi laay ak Seydi fii ci ndakaaru gi ëppale wuñ ñu dara ndombal tànk nag yàlla koy joxe xëy na seen doomu genre ndombal tànk yi maire day wàcc mais ndombal tànk suñu borom du wàcc ba yomal xiyam mënuñu ci dara dana waroon ñëw wax nit ñi ne leen bis sàngam lii la ñu bëgg ak lii ci yar ak ay teggin gis nga nit lu ko mën a doon na am yar ami teggin boo amul yar amooy teggin xale bu ndaw dina la teg ci ay yar a teggin mais ñëw fekk fii yàq yi fi jàmbur yi yàqal kii bàyyi kii yàqal kii bàyyi kii loolu pour lan la kon am na lu ci ne si biir li ne si biir nag ñu wax ñu ko ñu ñàkk ñu ko wax ñun bàyyi nañ leen ak yàlla mi nga xam ne mooy dox suñu diggante ñoom man day man ak samay frère ak ñëpp lépp lu ñuy yàqal yàlla na yàlla dox suñu diggante ñoom du ma leen yóbbu ci yoon du ma leen yóbbu ci kenn yàlla dong laa leen di bàyyal yàlla nañu yàlla atte balaa muy am une semaine du ma wax sax at mais naa fexe naa fexe ba yomal xiyaam day am gis nga mais fen wu nit fen ca aras lay toog ca aras lay toog tudd sa tur yow ni nga tudd noonu lay fen yu tudd. te yéen problème mu maire ñun maire bi ñun dañ ko lijjandi sax ñun dañoo seex ak moom dara ñun demuñu su commune am demuñu fennam fii lañ ne si tool yi di bàyyi ñi fi ne dañuy daan seen doole dañu bàyyi seen i njaboot ñëw fii di liggéey te yàlla rek tax du nuy jaam du nuy sàcc du ñuy doxandem mais nañu ñëw ñu waxtaan ak ñoom si nit ak nit nga xamal ka carrément ne ko lii dama soxla yoon wii. fii nga nekk randul nii wala lii nga yor kat mais bu dee da nga koy yàq nga dédommagé ko nga jox ko alalam parce que alalam la fi def. sunu frère bi Ahmed nii ñu jàpp ko mënatu ko nii man na ko yor sa ginaar wala sa benn baadoo la boo xam ne lii rafet na ah ñu defe si ngóor la ne si ngóor mais ñoom kii nu yóbbu xam nañ ne yóbbuwul doxandeem buy taxawaalu buñ ca yeggee daañu xam ne yii moom kii nu yóbbu du ku nu force ci mbedd mi di ko yóbbu loolu pour lan la. waxu nangu na wax ak kenn mais fu ñu ko mënti yóbbu bee ba ñu yóbbu ko biir géej. bay boo ñu yóbbu ko ba ca biir géej gi ñu tëmbal ko foofu mais du yombe noonu du sedde noonu parce que réew mi ku ko bëgg a yor da koy da ngay dox ci dëgg di wax ci dëgg mais dañ lay ootal ba nga ñëw jox leen cër jox leen réew mi kenn ku nekk génne ji koy boppam la ah ñun du ñuy fii lañ dëkk Cambérène gii fekk fi suñuy maam di fi bay dem yomal xiyaam am fi suñuy bàyyi ñu di fi bay ñu ne fi tey mais loo am dañ cey waxtaanee àdduna waxtaan la laaj mais lii ban réew la amati sax gàddu sey fetal ñëw nii mel ne ku nekk guerre ah ñun dañuy ay jaayil yoo xam ne ñun dañoo judd ci désert bi ne ñu ni def nii pour lan suñu alal la ñu yàq bu ñu fayee ñoom la bu ñu fayul ñoom la mais bàyyi nañ leen ak yàlla mi nga xam ne moo dox si diggante nit ak nit te yàlla nañu yàlla atte ci atte bu gaaw bàyyi leen ak yàlla fu ñu leen di yóbbu parce que fi ñu leen di yóbbu ñoo ñoo leen yónni foo leen di yóbbu tey bu dee kilifa moo leen yónni tey def loo leen loolu boo demee ci kilifa loo koy wax boo waxee mu bind nga ci kay sànni yàlla na këyitam du ko sànni turaal da koy weer ba mu ne fàng ba ñëpp teg seen bët bàyyi nañ leen ak yàlla ñoom ñëpp ku ci taq yàlla na yàlla feeñal lépp ci yow yàlla na yàlla dox suñu diggante yàlla yàlla atteeg ñoom ci àdduna atteeg ñoom ñoom yomal xiyaam baalu ñu leen ko tey baalu ñu leen ëllëg benn un centimètre leen ko leen ko baalu ñu leen ko yàlla na dinañu atteeg ñoom nit nag di ko wax ne yàlla na yàlla atte mu naan waa d'accord mais yàlla na liggéeyal nañ ko fii liggéeyal nañ Seydina Limaamu ci wooteem bii barke Seydina Limaamu yàlla nu yàlla atte te yàlla dinañu atte te suñu xol lañ ko tibbee ñoom bu doon ñoom nit ak nit rek ci mbagg ak mbagg lu ñu mënal la ñu mënal dara mais andi say arme defe ne boo ko taxawee niñ ci day taxaw pour lan lan mooy arme nit ki bu la bëggee jaay bakkanam boo yoroon téeméeri arme da lay song mais ci problème diplomatie ñoo leen raw fuuf moo tax faalewuñ leen ak seen i bagage dañu taxaw jàpp suñu jàmbur di leen déglu mais am na loo xam ne àdduna moo doxewul noonu gis nga da ngay gore da ngay am respect nit ñi parce que ku ñu yor poste nit ñi la ko jox mais wor weesu ñu jox la ay poste ba pare nga jàpp montagne yi di dajalee di jaay jaay loolu ba loo lekk àdduna di nga ko war di nga ko yàbbi àllaaxira te deegu bon ngay dee te yàlla nu yàlla atteeg ñoom ba barki Seydina Limam bu ñuy dee yàlla na sukuraat bu yàgg si ñoom billahi walaay taalay bala ñuy dee yàlla nañ sukuraat ba seen mbokk ti gën a tiit si ñoom yàlla nu yàlla atteeg ñoom li ñu comme message daal mooy ñun Sénégal lañuy waxal population sénégalaise ñu xam li xew fii dañuy jël di ñu néewal doole dañuy néewal doole dégg nga am na ñu nekk ci biir fii xëy nañ yaakaar na ni ñoom ñoo am doole mais amuñu doole yàlla moo am doole mairie Patte d'Oie mu ngi def extension fii ci ci tool yi te fii nii poumon vert la ndoxu taw yëpp fii lay fii lay dox ñëw ñun suñu maam yi ne woon fii juróom-ñaari dex moo fi ne woon juróom-ñaari dex fan la nekk fii léegi gisatoo ko dëkk nañ fépp fii ndox mi day yéeg day ñëw ñëw fii ndox pluie yëpp moom fii la fii lay dugg fii lay dugg léegi nag xam naa ne loolu lañ teg bët ak suuf si ni mu seere Dakar ak affaire yooyu noonu fii nit mënu fi dëkk nan gëm yàlla tin bët mënu fi dëkk nan dem jam ñaaji wala ñu dem feneen wala feneen mais fii mënuñu fi dëkk suuf si li mu seer moo tax ñuy jéem a dëkk kii nag fii nag lii nag dama yaakaar ni dafa am lu ñuy kii nii rek xalal rek dañuy am na lu nar mais su ko doon defar yoon ku ku doo yàq doo yàq lii garab buy fruitier arbre fruitier ay ay ay ay légumes nga koy yàq defaroo yoon waaw. mais tàggatoo daal mu ngi noonu daal léegi daal daal ñu ngi woo population sénégalaise bi yëpp ñu au moins sax suñu déggee lii sax ñu bind sax texto sax jox ñu sax bokk ak ñun sax ñun doy nañu mais état Sénégal walla yii ñi xaaruñu dara si ñoom suñ doon xaar dara si ñoom duñ ñëw fii di di dóor waar xaaruñu dara si ñoom mais dañ bëgg sénégalais yi nañ yeew ñun jeunes yi nañ yeew xool ñii ñi ñu jiital tey jii ñu ñu jiital tey jii gis nga lii la la ñuy def bu mu leen bett su gaal yi déparé fii de bu mu leen bett fu gaal yi defee soulèvement populaire fii de bu mu bett kenn gis parce que lii ngeen gis da góor góorgóorlu ñu lay nësaxal ñu leen naxasal man nag maa ngi woo waa Cambérène yëpp di woo autorité Cambérène yëpp ñu ñëw jàpp si lii man waa Cambérène lay woo mais état Sénégal waxuma leen mais waa Cambérène nan xam ne seeni doom la ñuy la tuutal fii seeni doom tool yi nga xam ni seen aliment min yaakaar daf ñu waxoon dina ngeen jàpp si géej gi jàpp si si dër bi fii mooy dër bi dem nañ si géej bi defal nañ ñu fa benn miir boo xam ne ñun pour ñu dem géej sax nga di problème la dégg ngeen ñu coowu Cambérène boobu naan Cambérène ñoo bañ tali bi jaar fee Cambérène musul bañ développement école française première école française Cambérène la am si Seyna Issa Roolaay musuñu bañ développement mais nit ñi opinion bi la ñuy buuree bi duñ xam ñu muy dem deme deme noonu fekk ñoom ñoo nekk si biir ñoo lekk xaalis bi dégg nga ñu ñëw fii si dër bi deuxième bi ñu digaloon ñu fiy jéem a góorgóorlu pour am autosuffisance alimentaire tey jii mu ngi nii lii la ñu fay ñun nag waa Cambérène la ñuy woo sëriñ beeg maire yi ak ñëpp ñu ngi leen di woo daal xamal leen dañ leen di xamal ni situation bi nii la fa demee joxuñu ñu këyit joxuñu ñu dara dañ xëy xëy un bon jour rek ñëw ak ay ay ay ay ay musicien yàq lépp garab yi sama loxo maa ko fi def trois ans la am trois ans mu ngi nii di meññ yëpp ñu yàq. sira sira jonn fii laay liggéeyee aw ma fenn fu ma war a liggéeyee bu ma xëyee fii laay jaayee ñu ñëw xëy xëy rek buub sama mbaar teg ko fee instant bii samay doom lan laa leen di jox wala lan laa leen di wax aw ma kenn ku ma jàppale nag bu fekkee mun ngeen ci jàpp ngeen jàpp ci maa ngi nii sama mbaara nga ne buub nañ ko teg ko te amul benn joxuñu benn euh, kii euh, euh, autorisation waxuñu dara joxuñu benn kayit dañoo ñëw xëy xëy rek yàq ko fii laa njëkkoon di jaay ñu ne ma naa pousse parce que ginaar yee tax léegi bi ma poussé ñu buutal ma foofu ma toog foofu di liggéey gis nga ñu ñëw rek xëy xëy rek buub lii buub sama bos teg ko fee mu ngi ne sant naa leen nag gërëm naa leen yéen ñi xam ne yéen a ma may pour ma wax ak ñi ñoom.